internet yu Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xam ni yéen a ngi koy ànd sune su ak sunu ay programme tey rubrique décortique mu ñëw euh, ci série Emprise épisode 15 bi dañu koy door ak euh, séquence bi nga xam ni gis nañu Fatou euh, moom nag mu ñëw di waxtaan ak Uli di wane ni rek da koy soutenir waaye di koy jàppale ci moment yu difficile yi nga xam ni ci lay dund ndax or mi gisul jëkkëram moom mi nga xam ni moo di Uli waaye yaayam mi ngi en prison te ku ne xam na ni uh, seen yaay moo doon rek seen gàllaaj uh, moo leen doon uh, jàppale di leen taxawu ci lépp Fatou nag ñëw di wane ni rek dafa bëgg uli di ko jàppale waaye ku ne xam na ni Fatou nekkul koo xam ni jigéen bu baax la ndax lépp lu muy def rek intérêt moom moo ko lal mën nañu ni rek mag la waaye doxalewul doxinu mag benn yoon ndax intérêt lay jiital fu nekk ki nga xam ni moo di uli nag dafa wone naïveté dafa wane ni itam euh, li ñu naan ku la mag ëpp la ay sagar euh, loolu moo am ci digganteem ak faatu ndax moom Uli jàpp na ni Fatou dafa sincère faatu li mu bëgg rek euh, li mu wax rek dëgg la ci moom loolu nag naïveté dëgg weesuwu ko ndax ku ne xam na ni sa wujju mënu laa bëgg rawatina wujju boo xam ni ci xeex rek ak xuloo ci ngeen dëkk saa su ne mu wan la carrément ni bëggula kon Uli foofu dafa rek daal di wane mbiru xale dëgg Euh, ba tax na nag ki nga xam ni moo di tante Koura bi mu ñëwee gis ki nga xam ni moo di faatu di raay biiru uru uli bi dafa dal ci seen kaw rek dal ci kaw ki nga xam ni moo di faatu nga taxaw temm rek ne ko kii man maa koy euh, défendre euh, ngir rek mu bàyyi ko ndax moom li mun a comprendre ki nga xam ni moo di uli munu koo comprendre waaye gis nañu uli tontu bu ñàkk kersa bi nga xam ni moom la tontu tante Koura waaye nag lu ñu naan ku xamul rek xamul ndax tante Koura mi nga xam ni moom mooy mag xam na bu baax a baax fa nga xam ni fa faatu di xalaat xalaatee ndax comme li ñuy wax rek ku la mag ëpp la ay sagar euh, te mag dina euh, taxaw euh, fu sori di gis loo xam ni xale mënu koo gis kon uli yaakaar naa te juum na ndax ki nga xam ni moo di tante Koura am na dëgg ci kawam ndax Fatou li ko indi ci kër gi dara lu baax lalu ko ñu jàll ci Mansour euh, Mansour nag moom gis nañu ni kinne bi ñu ko kidnappé ba tey euh, fexe rek euh, ba du génn benn yoon loolu nag nekk na loo xam ne lu métti Mansour la waaye xam na bu baax a baax ki nga ki nga xam ni moo di kinne du ko mos a bàyyi mu dem te it nag mën na koo def lu métti mën na dem sa ba faata bakkanam ndax ku nekk ku ku. ndax ki nga xam ni moo di Mansour xam na bu baax a baax ki nga xam ni euh, moo di euh, Kiné na bu baax a baax ki nga xam ni moo di euh, Kiné ndax yàgg nañu ba tax na nag Mansour di ko rek di ci waxtaan ak moom si njekk rek ngir mu daal di koy bàyyi ngir mu génn waaye ku xam Kiné xam ni pareegul sax ngir bàyyi ko mu génn ñu jàll ci uli uli nag moom mu ngi souffrir mu mel ni biiram day metti mu mel ni kon faatu raay bi nga xam ni raayoon na ko biiram du neen ndax gis nañu en même temps Fatou mel ni ku ko yëg di kontaan euh, di rek mel ni kuy euh, jubilé wu euh, kon ki nga xam ni moo di uli su moywul rek dina ñàkk doomam jooju te dara waralu ko nag lu dul naïveté ak sàggante ndax yaakaar naa nit sa noon waroo ko sax ubbil sa buntu kër waxatuma laa nag nga koy bàyyi di ko entré ba muy raay sa biir nga koy bàyyi noonu kon nag lu ñu naan xelu xale moom moo jàpp bu baax a baax ki nga xam ni moo di uli loolu rek moom moo feeñ faatu itam jaay ko xelu mag ñu jàll ci Kiné Kiné nag gis nañu dem na seeti Masayar ndax ku ne xam na ni bu ñu fàttalikoo ci saison bi moom moo jàppale woon Masayar ngir rek ci digganteem ak ki nga xam ni moo di uli ndax moom euh, Kiné lenn moo ko yitteel mooy uli daal di génn ci sëyam ak ki nga xam ni moo di Mansour ba tax muy lëmbat paaseem euh, di lijjanti di def lu ne rek ngir uli mën a génn ci sëy euh, boobu ci la xamanteeg Masayar ba tey mu daal di koy seeti ci hôpital bi nga xam ni nekk na fa ngir xamal ko ni ko uli dafa ëmb ngir rek moom Masayar mu gaaw tane ngir am courage u génn ngir mën a affronter ñoom uli ngir rek uli mën sëyam euh, mu mel ni kon li ñu naan euh, noon bu jàppee du bàyyi ndax moom mi nga xam ni moo di Kiné euh, moom it bàyyiwul benn yoon te wu jëm yëpp nag la ci yemale waaye xam na ni uli moom moo ci gën a nekk problème ndax ki nga xam ni moo di seen jëkkër di Mansour uli rek lay tudd saa su ne ndax bu sañoon tey jii ci uli rek lay fanaan ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Zara moom donte nag sincèreul wala mbëggeelam ci rakkam dëgguwul waaye gis nañu jëm rek di def ni euh, nga xam ne noonu la mag war a taxawoo euh, ndax gis nañu ni euh, ci hôpital bi nga xam ni Falaka Dia nekk euh, gisul papa gisul kenn waaye moom Zahra à chaque fois rek moo ngi ñëw di ko rendre visite muy loo xam ni naka lu am am am solo la ndax yaakaar naa nit loo ko bañ bañ bañ euh, bu fekkee ni dafa nekk ci ay jafe-jafe war nga koo taxawu ak bépp rek problème boo xam ne am ngeen ko seen diggante bu nekkee si jafe-jafe wala mu soxla la war ngaa fàtte lépp te daal di ko cay taxawu ndax nit nitay garabam te yaakaar doomu aadama Euh, moroomam ñu jàll ci beneen séquence séquence bi nga xam ni gis nañu na di feccal paa bi euh, fecc boobu nag nga xam ni mi ngi koy feccal paa bi euh, gis nañu ni lu ne rek la ko ci paa bi di defal paa boobu nag yaakaar naa nekk na paa boo xam ni bëgguñu ko ci suñu société ndax yaakaar naa di tëju ak jigéen ci benn appartement mu lay feccal ba tax lépp loo am ci ay bien bëgg nga ko koo jox yaakaar naa loolu jëmalewul kanam réew au contraire da koy delloo ginnaaw yaakaar naa xajoon na feneen wala nga investir ko ci leneen euh, loo xam ni euh, di nga si euh, créer ay emploi wala leneen loo xam ni da nga koy def lu yàlla gërëm moo gën yaakaar naa li nga xam ni nekkee na ko mu mel ni nag loolu bëri na lool ci suñu société bi nekkuma fi nag di juge kenn waaye lu doy waar la loo xam ni war nañu ko xoolaat bu baax a baax ñu jàll ci awa awa nag moom gis nañu ni euh, jamono ji depuis ki nga xamee jaar yi génn àdduna ba tey euh, beneen nit la ñu gisaat beneen awa la ñu gisaat mu mel ni euh, doyewu deewu ji doom bu jigéen affecté na ko bu baax a baax ba tax nag muy dund ci influence yu yërim ba tax mu bëgg a ay xaritam yépp ba si jiili mi nga xam ni dafa ñëw di ko mettre en garde ci ki nga xam ni moo di yërim nanguwu ko déglu ndax moom jàpp na ni jamono ji lépp lu ko dal ñoom jiili ñoom ñoo ko ko ni deewul doomam boobu génnul ci seeni ay uh, loxoom loolu nag ki nga xam ni moo di yërim moo koy def ci uh, xelam uh, ba tax nag yërim moomu nekk na koo xam ni ku bon la ndax gannaaw bi nga xamee ni jéem na xeex ngir ki nga xam ni moo di jaari ba sonn jotul ci moom tey bi jaari dëddoo dafa ñëw daal di jege yaayam ngir rek profité wu ci moment de faiblesse bi nga xam ni awa nekk na ca ngir rek am place ñu jàll si jàngoo jàngoo nag ñu moom euh, saa su xëyee rek mbëggeelam ci sukay mun nañu ni day gën di yokku euh, ndax mbëggeelam ci sukay rek mën nañu ni bu ko dofloo itam euh, jege na ko ba tax xaritam bi rek di ko ko wax waaye moom jàngoo dëggal na ko ndax xamal na ni suy dund ba tey wala nag buy bëgg dund ba tey ki nga xam ni moo di sukay moom moo ko waral mbëggeel nag ku ko xamul rek moom mooy wax ni amul waaye ku ko xam dëgg wala nga dund ko dooni amul ndax ku ne xam na ni mbëggeel lu am la tey nag nekk na loo xam ne lu sonal euh, nit ñi nga xam ni ñoom ñoo koy euh, dund la rawatina nag boo bëggee koo xam ni euh, bëggu la waaye ki nga xam ni moo di jàngoo gis nañu saa su ne rek li nga xam ni moom la ko su koy jaral donte nag su koy delloowu ko lu ni mel ñu jàll ci Marie Thérèse moom nag dafa mer mer bu baax a baax ci ki nga xam ni moo di yaayam ba tax xool ko sax wala toog ak moom lu yàgg sax mënu ko loolu yëpp nag li ko waral mooy su koy xool day gis ni moom moo rey papaam ak yu bari yi nga xam ni ni moo ngi koy découvrir ak di ko dégg ci yaayam yëpp loolu nag nekk na loo xam ni tax na mënul rek euh, am mbégte ci yaayam benn yoon wala nag mu koy xoolee euh, benn euh, bët bi Euh, ba tax na nag ki nga xam ni moo di yaayam lépp loo xam ne mu ngi koy wax ngir delloo si ko ci wetam euh, Marie Thérèse mënu koo euh, dégg muy loo xam ni nag lu ñu mën a comprendre la ndax Marie mën nañu nii dafa confuse xamul rek ban fan lay taxawee ndax bu ñëwee si yaayam yaayam wax ko lii bu demee ci ñeneen ñi ñu wax ko la la ca des nekk na loo xam ne itam lu ko jaaxal la ñu jeexal ak Mansour Mansour nag moom gis nañu ni fa mu nekk euh, xelam yëpp si euh, ki nga xam ni moo di uli rek la euh, nekk ndax moom jàpp na ni uli soxla na ko ndax dafa ëmb doomam waaye faatu ak yaayam ñoom li ñu naan ndey doom ja moom la ñu gis ndax ki nga xam ni moo di faatu moo roon a am xolu yërmande ci pàppam daal di koy jàppale ba mu daal di génn ci kër googu waaye xalaatu ko ndax dafa dem rek bay chantage papaam di ko rek xamal ne ko rek na choisir entre moom ak nga xam ni moo di uli euh, mu mel ni kon li nekk ci euh, faatu euh, yëpp li nekk ci kinne yëpp mi ngi ci faatu kon Mansour yaakaar naa fa mu nekk rek du yomb ngir mu génn fa ndax ki ko waroon jàppale di doomam xalaatu rek ngir jàppale ko kon mbokk internet yi ñu topp leen rek si yeneen épisode yi waaye laa daa boobu wëyal leen di abonné ci seen série TV te ngeen bës si cloche de notification bi pour ngeen di jot suñuy vidéo ci saa si en temps réel jërë jëf